bul fàtte ne itam waxoon nan ne bu fekkee ne sa tukki bi mat na doxu wàññi mel ne nga bàyyi ko daarul muxti jëm kawlax gi wax léegi waaye am nga yéene yi jaar Touba am fa ñeenti fan door a jàll kon doonte Touba moom du fa nga dëkk amoo fay soxna soo xam ne wéet nga ak moom waaye rek gis nga ne bëgg nga faa jaar am fa ñeenti fan door a jàll kon fii ngay bàyyi ko daarul Muxti ba foofu ci Touba itam doo wàññi ñeenti fan ña ngay sax Touba mbaa lu ko ëpp itam doo wàññi boo fi jógee wuti Kawlax nag ngay door a wàññi kon ci gàttal moom bu tukki bi matee soriwaayu doxu wàññi waaye nag am na foo xam ne fa nga njëkk a bëgg a wàcc am fa ñeenti fan door a jàll te boo seetloo fii ngay bàyyi ko foofa matul doxu wàññi doo sañ a wàññi ci booy dem ak boo fa nekkee boo fa jógee nag ngay door a tàmbalee wàññi nga bañ a fàtte itam ne boo wàccee ci dëkk boo xam ne am nga fa soxna waaye soxna sa dañ la ko may dong jotigul ak moom dara mbaa jaar nga ca dëkk ba soxna sa nekk waaye da ngay romb rek moom di jàll wàccoo fa kon ba tey da ngay wàññi rek waaye doo matal awi tàmm wala mu roy bil muqiimi ci aji sax su fekkee sa sunna mooy wàññi ndax sa tukki bi matale na sarti wàññi waaye dangaa fekk koo xam ne moom day matal mu jiite la kon na ngay ànd ak moom fekk ko ca matal ga doo am rekk ñaari ràkk di ko xaar ba mottali sëlmal nga door a sëlmal doo am rekk itam ñaar daldi sëlmal ndegam xës nga ànd ak moom mu jiitale te moom day matal rek faaw da nga koy fekk ca matal ga moo tax loolu lu ñu siba sib la dañu koy sib lool ndax yow da ngaa wàcc saw yoon wàññi gañ sunnaaloon ci yow roy nga roy ci kay matal tax na doo ko sañ a def ba tey sax sib nañu yow ngay matal ba noppi fekk kuy wàññi mu jiite la waaye moom moo xaw a tane ndax kenn ku ci ne day jaar ci aw yoonam ndegam yow da ngay matal waaye ki lay jiite moom day wàññi da ngay ànd ak moom rek bu amee ñaari rakka moom daldi taayu sëlmal yow nga jóg dolliwaat ca ñaar daldi matal nga xam ne kenn wàccu ca aw yoonam moom moo xaw a tane aw iqaamati arbahatin wala sax ñeenti fan aw ilmiha wala xamuk sax ñeenti fan fil aadati ci aada saa yéenee sax ci benn béréb lu mat ñeenti fan rek nga xam ne ñaar fukki julli yu mat sëkk dana ko fa fekk rek day daldi bàyyee wàññi su fekkoon ne it moom yéeniwu fa am ñeenti fan waaye yitte ja ko fa tax a ñëw xam na ne moom balaa mat faaw mu am fa ñeenti fan kon mu yéene faa sax ñeenti fan ak mu ñàkk ko faa yéene sax ñooyamoo rek faaw day matal ba bàyyi ko foofa su àggee ci béréb nag di fa toppatoo soxla soo xam ne xamul kañ lay sotti saa yu sottee rek nag moom mu daldi fay jóge waaye xamul kañ lay doon day wàññi rek ngi mel ne sëñ bi woote ab liggéey foofa sori sori waayu wàññi julli yi te xamuñu liggéey bi nu muy demee ci gaaw wala ci yeex liggéey ba rek moo la fa bàyyi bu jeexee rek nga dal fay jóge waaye xamoo na kañ lay doon te it mën laa doogu ne faaw dana mat ñeenti fan kon na ngay wàññi rek loo fa yàgg-yàgg da ngay wàññi julli yi mooy sunna wa arxasoo yolomal nañu bil barri ci tukkib jéeri maanaam tukkib suuf si id tazoola ba dana rëcc moom jant ba bi man halin ci ab béréb man hal dara firi ab naanukaay béréb bu am ndox waaye fa wàcc rek moom may tukki lañ jublu moo xam am na ndox moo xam amul ndox waxad nawaa te mu yéene an nosoo la wàcc ga xinda xuroo bi samsi fa soxub jant ba aw min ba adin wala ci gannaaw soxub jant daañu ko yombalal taqdiimahu ak jiitalam ak zuhrayni tisbaar ak takkusaan xindal xindal jiddi fa taruk dox ba maanaam bam farloo ca tukki ba am lu muy dab bañ mu raw ko wax ja gën a wóor mooy loolu du ci ab sart xindal jiddi jooju mën naa ñàkk ci wax ci gën a wóor day wax nag boole yaari julli julleendoo leen te fekk na am na ca goo xam ne benn julli nga ko te waxtoom jotagut mbaa yeexe nga ko ba muxtaaram jàll loolu dañ koy mayee ci tukki ci niñ koy bëgg a waxe nga dégg ko yaari julli yu bokkaale waxtu muy tisbaar ak takkusaan ci ak wet ak timis ak gee ci ak wet lañuy def lu mel noonu boole leen julleendoo bi mu wax nag tisbaar daa jot fekk nga nekk ci yoon wi wàcc nag ci ab bërëb te am yéene yi boo xësee waraat moom bala ngaa wàccati jant bi dafa so xam ne kon bu jant bi soo day fekk tisbaar takkusaan seen waxtu yépp jeex tàkk-tàkk ndegam tisbaar jot na te yaa ngi ci béréb boobu te yéene boo waraatee bala ngaa wàcc jant bi dafa soo dañ lay may nga julli tisbaar tekki takkusaan fa saasay saasa nga xam takkusaan yaa ngi koy julli xaat te tisbaar moom moo jot takkusaan jotagut loolu tukki bee tax ñu may la ko bu doon timis sa gee it nga wàcc ci ab béréb timis fekk la fa te nga yéene boo yéegaatee bala ngaa wàccaat fajar daa fenk dañ lay may kon nga daal julli timis teg ca gee fa saasay saasa te xam nga ne gee jotagut timis rek moo jot kon nga seetlu ne xindal jiit di jéemu daaneele bayri wa mel na ko ca sartaale nga nekk ci tukki bu la fara far mel ni am looy dab bañ mu raw la loolu du ci ab sart loolu am ci ak mu ñàkk ci am ñooyamoo rek du tee nga sañ a boole julli yi noonu ñu wax axir na nga yeexe alxasra takkusaan faqat dong xablas firaarin ci njëkk geluk suuf bu fekkee ne nag bi la tisbaar jotee ci béréb boobee am nga yéene yi wàcc ci muxtaarum takkusaan kon dañ lay wax ne la da ngay julli tisbaar doom fii nga nekk bala ngaa dem takkusaan nag nga bàyyi ba wàcc door ko julli ndax ndegam yow nee nga am nga yéene wàcc ci muxtaaru takkusaan kon amula ngànt ci di ko booleeg tisbaar da ngay bàyyi ba wàcc ci waxtoom rek julli ko ci waxtoom waxa yirufu na nga ko tànnloo fiixaa ci moom takkusaan baadahoo ci gannaaw isfiraar laa chatata amul génn jéggi dayoo ci jooju wax wala laa chatata amul wenn fen chatat day firi jéggi dayoo wax lu amul rek dafa bëgg wax laa kasiba fii zalika bi la tisbaar fekkee ci béréb boobu nag nga wàcc boo amee yéene boo waraatee daal moom bala ngaa wàcc muxtaarum takkusaan day jàll ba nga dugg ca daroor yu takkusaan kon yow takkusaan naroo koo julli ci muxtaaram ndax nee nga gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee nga am yéene yi wàcc kon nañ lay may bu la neexee boo jullee tisbaar far ci sësale takkusaan léegi léegi nga xam tukki bi may na la nga julli ko léegi léegi bu la neexee itam bàyyi ba wàcc ci daroor yow moom takkusaan door koo julli loolu nag moo gën ndax ndegam am nga yéene wàcc ci daroor yowm nga bàyyi ba wàcc ci daroor yowm julli ko ca am nga ca jàppandal te moo gën waaye nag bu la neexee itam nga daal di koy boole ak tisbaar léegi léegi bala ngaa dem nga xam ne boo wàccee ci daroor yowm itam fekk na rek julli woon nga ko su fekkee baatub daroor yowm ji ma wax dalaa nar a jaaxal ngay wax rek soo naree wàcc ci gannaaw bu takkusaani suuf jotee bu takkusaani suuf jotee fala muxtaarum takkusaan yem kon nag bu fekkee gannaaw bu takkusaani suuf jotee nga nar a wàcc fi mu nekk nag yaa ngi ci béréb tisbaar jot bu la neexee daal di julli tisbaar teg ca takkusaan fi saasa bu la neexee takkusaan nga yéexe ko ba wàcc ci gannaaw bu takkusaani suuf jotee door koo julli wa in takun ndéem dana nekk moom jant ba zaala di rëcc alayhi ci moom raakiban mbir mu muy aji war wa taaliban tey aji sàkku li nusooli ñeel wàcc ga bés firaarin ci geluk suuf yu axiru dana sañe yeexe ak zuhrayni tisbaar ak takkusaan li daroor yi ba ca daroor yu doomu weesu woon mooy tisbaar jot fekk la ci bërëb mbaa timis jot fekk la ci bërëb day wax nag bu fekkee ne ba tisbaar jotee daa fekk nga nekk ci yoon di dem mbaa ba timis jotee fekk nga nekk ci aw yoon di dem ndegam yaa ngi ci yoon yi moom am na jàpp ndal guñ la jàpp ndalal foofu boo doon tukki nekk ci sa warukaay di dem nii nag tisbaar daal di jot su la wóoree ne gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee da nga wàcc dañ lay may nga bañ a julli tisbaar bañ a julli takkusaan dem ba wàcc gannaaw bu takkusaan suuf jotee daal di julli yaar yépp nga xam ne tisbaar ak takkusaan ku ci ne da nga koo julli ci daroor yoom rek julli woo ca kenn ci moxtaaram loolu ak jàpp ndal la guñ la defal ci tukki wi loolu nag mat naa xam jàppal ne kon boo nekkee ci yoon wi di tukki moo xam sa warukaay bopp nga yor moo xam warukaayu paas maanaam fay paas ci nga nekk bu tisbaar jotee te borom oto bi mën a maye ñu mën a waaj julli loola baax na su ko gàntoo itam waaye jàpp nga ne da nga àgg fa nga jëm gannaaw bu takkusaan suuf jotee rek da nga fa àgg moom mën a julli yaar yépp dañ lay may kon nga wéy ca noona rek boo wàccee julli yaar yépp muy tisbaar ak takkusaan ñoom ña nekk ci oto bay tukki itam bu fekkee ne ñoo bokk fu ñu jëm te xam nañ ni moom gannaaw bu takkusaan su jotee daañu àgg foofa daldi wàcc mën nañoo bokk juboo ci yeexee tisbaar ak takkusaan bañ caa julli kenn gannaaw bu takkusaan suuf jotee bu ñu wàccee nag foofee ñuy wàcc ñu daldi julli yaar yépp tisbaar ak takkusaan ñoom ñépp ku ci nekk dañ ko julli ci daroor yoom loolu ak jàpp ndal la gu yoon maye aw ba adahoo wala mu yéenee wàcc ci gannaaw is firaar gannaaw takkusaani suuf la jublu ci aw baax dawoo waaye maxnaa mi dëgg-dëgg nag mooy mu yéene wàcc ci bu jant bi sooyee wala gannaaw bu jant bi sooyee faj ma xuma kon na nga leen boole ñoom ñaar bi suuri ci aw melo bi suuri jooju dafay jublu jamxan suuri yan boole goo xam ne melo bi moo di boole waaye ci dëgg-dëgg boo ko dee seet dug boole maanaam bu tisbaar jotee fekk yaa ngi ci yoon wi moo xam na ngaa war oto moo xam na ngaa war saxaar moo xam na ngaa war fas mbaa leneen waaye daal tisbaar jot na te yaa ngi ci yoon wi si yéene nag mooy bala ngaa wàcc daal jant bi daa so ba noppi nga door a wàcc mu mel ne kon yow tisbaar mbaa takkusaan doroo cee julli kenn ci waxtoom du ca muxtaar du ca daroor yi loolu moom kenn du la ko may ndax nekk ci yoon rek daal di bëgg bàyyi tisbaar takkusaan doo ci julli kenn kenn ci waxtoom du ca muxtaar du ca daroor yi kenn du la ko may dañ lay wax ne la saye boo boole booleeg melo booleeg melo mooy tisbaar jot na waaye mën ngaa dem rek ba muxtaarum tisbaar di bëgg a jeex nga daal di wàcc nag julli tisbaar nga xam ne boo noppee takkusaan daal di jot nga daal di koy julli mu mel ne kon da nga leen a boole waaye melaw rek moo di boole ndax da ngaa yéexee tisbaar ba ca mujj waxtoom ba nga noppee ci moom takkusaan jot nga jul takkusaan ci njëlbeenu waxtoom waaye kenn ku ne ma nga ca waxtoom kee daa nekk ca mujj waxtoom kee nekk njëlbeenu waxtoom rek waaye kenn génn ca waxtoom wañ ko tànnal loolu mooy jam xan suuri yan boole goo xam ne melaw rek moo di boole ndax boole dëgg-dëgg moom da cee am julli guñ yeexe ba muxtaaram jàll mbaa am ca julli guñ julli te muxtaaram ak seegut loolu mooy boole dëgg-dëgg ni nga ko déggee woon ci gannaaw moom lay wax naa fa waqihu kon day tàbbal az-zuhra tisbaar la daa waqtin tihaa i muxtaariha fa waxtu jeexuk muxtaaram ma wal xasra mu tàbbal takkusaan àddina waqtihaa ci njëlbeenu waxtoom wa mooy li ñu wax day yeexe tisbaar ba ca mujjug waxtoom mu daldi wàcc gaaw julli ko bu noppee takkusaan jot mu daldi koy gaaw julli ci njëlbeenu waxtoom ba tey nag kuy dem rekk noonu te amul programme ci tukki bi maanaam amul fii lay wàcc ci waxtu sàngam mbaa nàngam lii lañ koy wax mooy julli gu jëkk ga bu waxtoom jotee bu la neexee jàll ci sab dem rek ba waxtoom di bëgg a jeex nga daal di gaaw wàcc julli ko boo noppee gësës ci moom waxtoom jot moom it nga daal di koy julli sësale ca jógaat wéy saw yoon ndegam amul programme rek noonu ngay sañ wa yur toddaa def na ko gërëm nag min saxiixin ci aji wér aw maridin wala aji tawat li mujj wax mooy boole goo xam ne melow rekk a dig boole la wax ne yow mi dara dëllu sax tukki woo defoo dara sañ nga ko mel ne yaa ngi fii nga dëkk dara dëllu la tisbaar jot nga bañ a julli fa saasa bàyyi ba takkusaan jege nga daldi gaaw julli tisbaar nga noppee takkusaan jot nga daldi ko cay teg nga xam ne génnewoo kenn muxtaaram dangaa yéexe kee ba ca mujjug muxtaaram teel a julli kee ci njëlbeenu muxtaaram rek loolu yow mi dara dalut mën nga ko waaye nag tuyaaba ja nga war a am boo teeloon a julli ci njëlbeenu waxtu wa moom nga dul am xañ nga sa bopp tuyaaba yi teeloon a julli ca ba waxtu way door a jot ba tisbaar door jot soo ko julli woon ci njëlbeen waxtoom da nga am tuyaaba yoo xam ne doo ko am fii mu nekk bi nga yeexee tisbaar ba ca mu jug muxtaaram su fekkee nag dangaa tawat tawat joo xam ne julli gu ne nga waajal ko ci njëlbeenu waxtoom julli ko ca day metti ci yow tax laa def nii ñu wax nag yow da nga ca am nooflaay am ca jàppandal te du tee ñu bindal la tuyaaba yi ku teela na julli julli gu njëkk ga ca ba muy door a jot ndax yow ngànt li muy tawat ji moo tax nga def noona kii tukki it ba tey noonu tukki bee tax ñu may ko loolu ki wér nag moom bu ko defee sañ na ko nii waaye niñ ko waxee rek day ñàkk tuyaaba yi bu teela na julli ci njëlbeen waxtu julli gu njëkk ga wa fasil na nga tàqale maa la nga xam ne mada wéyoon na fil hisha ay li ci timis ak gee way jàngooy wi wa fil hisha ay ni waaw ko tàmbali fa fasil moo cee topp nga xam ne faa dafa nekk booy firi moom doo wax wa fa fasil da ngay wax rek wa fasil bañu jàngaale faa ga nekk ca fa fasil paagu jëkk doo ko jàngaale booy jàngooyu rek nag moom da nga ko jàngaale daa wax ni li mu la leeralal ci tisbaar ak takkusaan say boo xam ne noonu lay demee ci timis ak gee ndax timis ak gee dañoo bokkaale waxtu ñoom itam man ngaa takk ne kon bu timis jotoon nga nekk ci tukki bi wàcc ci béréb boo xam ne sa yéene mooy boo jógee ba yéegaat bala ngaa wàcc day fekk fajar fenk ba noppi nga door a wàcc kon daañu la may boo julee timis nga sësale ci gee fa saasay saasa nga xam ne teel ngaa julli gee te waxtoom jotagut ndax timis rek mooy door a jot su fekkee na it danga ne danaa wàcc ci muxtaarum gee maanaam guddi ko defoon ñetti xaaj balaa benn baa jaal danaa wàcc dañ lay wax ne la kon timis dong ngay sañ a julli gee nga bàyyi ko ba wàcc ndax fo waxtu wa ngay wàcc mooy muxtaaram nga julli ko ca kon amu ngant ci di teel a julli gee di ko jiital ndax yow ci muxtaaram waxtu wañ taamu ko ci julli ca nga yéenee wàcc boo nee nag su ma xasee yéegaat moom gannaaw bu muxtaarum gee jàllee lay door a wàcc mel na nga ne ku defoon guddi gi ñetti xaaj su benn ba jàllee ba dugg ca bu ñaareel ba lay door a wàcc dañ lay wax ne kon li nga yéene mooy nër laa julli gee ci muxtaaram kon nag bu la neexee nga boole ko timis léegi léegi boo julee timis fësale ko ci bu la neexee itam nga bàyyi ba wàcc ci daroor yoom door koo julli nga bàyyi nag ba wàcc ci daroor yoom door koo julli moo gën ndax loolu mooy daroor yoom dëgg-dëgg bu timis jotoon nag fekk yow wàccoo ci benn béréb dangaa nekk ci yoon wi di dem kon bu fekkee dangaa programme ne ci guddi gi ku defoon guddi gi ñetti xaaj daal gannaaw bu xaaj bu njëkk ba jàllee lay door a wàcc waaye boobaa danaa wàcc loolu kon da nga ne ci daroor yu gee nga yéenee wàcc kon dañ lay may timis mii nga bañ koo julli gee itam nga jàll jàll rek ba wàcc ci waxtu woowee nga wax te mooy daroor yoom nga daal di boole julli timis ak gee nga xam ne kenn ku ci nanga koo julli ci daroor yoom rek julli woo ci kenn ci muxtaaram loolu jàppandal la ci tukki bi kon jàppal ne bu jant bi sooyee nga nekk ci yoon wi dem moo xam ne ngaa war oto mbaa saxaar mbaa fas mbaa leneen waaye jàpp nga ne ku defoon guddi gi ñetti xaaj bu benn ba jàllee ba noppi nag da nga wàcc loola daroor yu gee la dañ lay may kon nga bañ julli timis bañ julli gee soo wàccee nag daal di boole julli timis ak gee ñoom ñépp kon ci seen daroor yi nga leen julli boobu timis jotee nag te fekk la nga nekk ci yoon wi dem soo programme woon bala maa wàcc fajar day fenk ba noppi ma door a wàcc dañ lay wax ne la kon duñ la may nga wéy rekk bañ julli timis ak gee ndax li nga wax mooy doo ci julli kenn ci waxtoom loolu kenn du la ko may saye boo def lañu waxoon jam xan suuriyan boole goo xam ne melow rek mooy ak boole waaye ci dëgg-dëgg du boole loolu mooy timis jot na waaye mën ngaa dem rek ba muxtaaram di bëgg a jeex gee di bëgg a jot nga daal di wàcc julli timis boo noppee gee jot nga sësale ko ci jóg daal di jàll ci saw yoon nga xam ne kon dangaa yeexe timis ba ca mujjul muxtaaram rek daal di gaaw julli gee itam ci njëlbeenu muxtaaram waaye kenn ku ci ne ci waxtoom rek la nekk loolu melaw yi rek moo dig boole waaye ci dëgg-dëgg moom du boole kon liñ jot a wax boo ko bëggee gàttal gàttal goo xam ne da nga ko mën a takk da ngay wax ne soo dee tukki tukki boo xam ne mat na doxu wàññi nga xam ne su sunna mooy wàññi julli yi yaari julli yu bokkaale waxtu te mooy tisbaar ak takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet ba tisbaar du jot di julli gu jëkk ga ndax moo jiit takkusaan wala ba timis du jot ndax moo jiitu gee ba julli gu jëkk di jot benn mu fekk la nga wàcc ci béréb mbaa mu fekk nga nekk ci yoon wi di dem da ngay njëkk a tomb nag bi mu la fekkee ci béréb bu la fekkee ci béréb moom te nga programme ne bala maa wàcc jullit ñaareel gi waxtoom day jàll ba jeex mel ni nga ne béréb bii maa ngi fi tisbaar jot na li ma jàpp nag mooy su ma xësee yéegaat moom jant bi day sox ba noppi ma door a wàcc daañu la may kon nga julli tisbaar moomu daldi julli takkusaan fa saasay saasa te xam nga ni waxtoom jotagut nga xam ne bu doon timis ak gee it te ba timis du jot mi ngi la fekk nga wàcc ci béréb te li nga yéene mooy boo xasee yéegaataal moom fajar day fenk ba noppi nga door a wàcc dañ lay may kon nga daal di boole timis ak gee fi saasay saasa nga xam ne teel ngaa julli gee xaat te fi ko waxtoom jotawut su fekkoon ne nag da nga ne bu dee tisbaara li mu programme yi mooy bu takkusaan jotee balaa takkusaan yi suufa jot danaa wàcc kon bul fàtte ne tisbaar doom ngay julli bàyyi bu wàcc ci takkusaan door koo julli ndax ndegam ci waxtooñ taamu koo ci julli ca nga yéenee wàcc kon amul ngànt ci teel koo julli xaar ngay bàyyi rek ba wàcc door koo julli moom takkusaan bu doon timis ak gee it boo nee ku def guddi gi ñetti xaaj balaa xaaj bu njëkk bee jeex danaa wàcc loolu laa programme fii nga toll timis jot fa timis doom ngay julli nga bàyyi nag bu wàcc ci waxtu woowee julli gee ndax loolu mooy waxtu gee wa ñu taamu te yow nee nga ca ngay wàcc kon amul ngàntul di teel a julli gee te waxtoom jotawut bu dee tisbaar rek a jot li nga programme nag mooy gannaaw bu takkusaan suuf jotee kat ngay door a wàcc nga xam ne kon nar laa julli takkusaan ci muxtaaram da nga ko nar a julli ci daroori yoom ndax gannaaw takkusaan suuf nga wax diggante ma jant bi so kon day lay tànnaloo bu la neexee boo jullee tisbaar far ca teg takkusaan fa saasay saasa mu gën laa noppal bu la neexee nag nga julli tisbaar kese bàyyi takkusaan nag ba wàcc ci gannaaw takkusaani suuf muy daroor yoom nga door koo julli fekk loolu moo gën nag ndax loolu mooy daroor yoom dëgg-dëgg bu doon timis ak gee it noonu la bu la timis jotee ci béréb te la nga yéene mooy boo xasee jógaat daal moom ku defoon guddi gi ñetti xaaj benn ba day jeex ba nga dugg ci bopp ñaareel ba digganteem ak fajar nga nar a wàcc kon bu la neexee nga julli timis teg ci gee fa saasay saasa la neexee itam nga bàyyi ba wàcc ci waxtu woowee nga wax nga xam ne daroo réewu gee la nga door a julli gee loolu mooy teqalek bi nga nekkee ci tukki bi wàcc ci béréb julli bu jëkk ga benn mooy tisbaar jote la foofa te bu fekkee da ngaa jublu tisbaar takkusaan wala boo jubloo timis ak gee timis mooy julli gu jëkk ga fekk la ci béréb booba li ñu wax loolu ñu wax mooy googu teqale nga tomb nag ba ca des mooy julli gu jëkk ga daa fekk ci yoon wi ngay dem ni ki tisbaar fekk ci yoon wi ngay dem mbaa timis jot fekk la ci yoon wi ngay dem da ngay takk ne kon ndegam yaa ngi ci yoon wi dem tisbaar jot na li nga am yéene nag mooy gannaaw takkusaan suuf moom da nga wàcc kon yoon da lay may nga yéexe tisbaar yéexe takkusaan ba wàcc ci gannaaw takkusaani suuf daal leen di julli ñoom ñaar ñëpp nga xam ne kon ku ci ne da nga koo julli ci daroor yi loolu tukki bi moo tax ñu yombalal la ko sañ nga ko bu doon timis ak gee it timis jot fekk la nga nekk ci yoon wi waaye am nga yéene ku def guddi gi ñetti xaaj su benn ba jàllee digganteem ak fajar ca ngay wàcc loola mooy daroor yu gee ca nga nar a wàcc kon dañ lay may ngay weexee timis yéexe gee nga xam ne amu ci kenn koo julli ci muxtaaram